jërë ngeen jëf euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar jox leen seen wàccuwaay baax baax si loolu itam nuyoo beeg ziar bi ñu si jiital asaahibu fadila Sëriñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu euh, moom mooy borom mbégte mi euh, ginnaaw loolu itam di sant di ziar bu baax baax xalifatu Baay Faal di ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ba yéen a jëm am si yoonu suivre suñ boroom dimbali ko mu matal ko saa bu ngeen gisee sunu kàddu rek xam ne maanaam émission bi nga xamante ne moom lañ daan def muy émission ndaanaan yi fu muy daw fële télé bi nga xamante ne ndeysaan euh, réew mi yëpp moom la ñuy bàyyi xel muy 28 pro site internet bi nga xamante ne ndeysaan euh, képp koo xam ne fépp foo taxaw ne 28 pro rek xam nañ ko ñuy dawal benn émission émission ba nu mu tudd muy émission ndaanaan yi am solo lool tey jii nag ma dalal si sama ndaanaan bi nga xamante ne ndeysaan euh, mun naa ne kenn dootu ko présenté muy Nourou Sow comédien bu mag bi xanaa du ma def lu dul nuyu rek sëñ Nourou maa lay nuyu. baalu ñëpp ak ci koor ci bi ñu jugee tey ziare suñu xalifa si Muntaxa suñu yaakaar tey ëllëg di delloo ziar bi ñëpp rawatina yéen ñi nga xamante ne yéen waa Vingt-Huit ñëpp nag rawatina ñi nga xamante ne yéen sax di wax ne baal naa ñëpp àq kon jàppale ko kenn dara jërë ngeen jëf ñoo ko déggandoo euh, képp koo xamante ni yaa ngi béggee noor Sow rek dégg nga ni mu ko waxee nee na moom lay baalu àq si weeru koor bi nga xamante ni moom lañ génn parce que dugg nañ si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin euh, bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg kan mooy Nour saw loolu bëggoon nañ koo xam parce que itam euh, jamono dafa doy waar doy waar goo xamante ne tey comme comme si que soo invité nit il faut que nit ñi dañuy gëstu kii mooy kan bëggoon nañoo xam kan mooy Nour Sow bala ñoo suuxee si biir waxtaan waaw Nourou Sow de moom benn nit la boo xamante ni bu woyof bu woyofal àdduna tamit te xam ne àdduna du dara nekk nit koo xamante ni nit ku baax lay mën a jàppe sama bopp donte nag saabu mënut a fóot boppam mais li nekk ci man te maa xam ne mooy nekk ci man carrément ba di ma ko wax muy ak mbaax ak woyof waaw Nourou Sow nekk doomu Madiana dëkk Madiana di bëgg tamit ñi nga xamante ni ñooy waa Madiana di leen ziare ndax man ñooñu laa am di leen jaajëfal bu baax ak képp koo xamante ni yaa ngi bëgg Nourou Sow ñi nga xamante ni ñoom lay àndal ci mel ne monsieur Tou Ahmed Ablaye di leen ziare bu baax a baax. Euh, Nourou Sow euh, ginnaaw loolu itam bëggoon nañoo xam dëgg-dëgg nuru lan moo ko téye parce que jamono ji ñu toll ñii ñooy naan nuru dafa laqatu am si yu mu nekk parce que dañ léegi gëj a gis si yëf yi ñu si bëri dañ may envoyé message di ma ko laaj ma ne nag pourquoi tey jii nii comme te am ñëw yow émission ma laaj la loolu lan moo xew. waaw li xew moom jàmm la ak salaam rek maanaam nit ki boo nekkee ci dara. doo topp benn soo bis rek nekk ci dangay ngay def ba si yàgg nga taxawaat dafa tekk xoolaat maanaam di xool fi nga jógee ak fi nga jëm ak li nga commencé maanaam comme ni ma ko mën a expliqué ci wolof mooy nekk sa kanam ak li nekk sa ginnaaw fi nga romb jëm lan moo ci tani te ansi bi tamit nuuru xawoon a jagadi benn jagadi bu ndaw rek mais fiix naa bu baax a baax a baax euh, di leen wax ne maa ngi ñëwaat ak beneen façon incha allah ndeysaan ñoo ko dégg déggandoo mbokki jullit yi ndeysaan li mu wax am na solo lool ndax euh, affaire bi xawoon na ma jaaxal parce que euh, suñ toogee ab diir gisuñu Nourou Sow nga xam ne euh, Nourou Sow képp koo xam ne yaa ngi suivre TikTok wala YouTube xam nga ko si comédien ah, si comédien ndax doon na nit koo xamante ne ñaareel moo bu mu wax parce que day am loo xamante ne maam si nit ki lay doon moo bu mu wax rek ñaareel da lay def ay ree nga xam ne TikTok bi ñëpp xam nañ ko si si si si lu rafet loo xam te ne moom lay def ba tax na di ngeen li wax daa xawoon a jage di te suñu borom defal na ko tawféex ak taysiir ñëwaat na ñu bëggoon a xam maanaam nooru euh, vidéo yi muy def maanaam lu muy répété la wala lu muy tëb tëb euh, euh, di ko xalaat nii rek wax ko wa ilaa da bind. ci boobu moom yaakaar naa même suñu commentaire sax dañ koy gis <coughs> mais loo xamante ne toog la ensemble buñ toogee xalaat ne pourquoi waruñoo def nangam gars yi daal di xool ne lii buñ ci yokkee lii ak lii dana baax ñu def essai xool suñ essai bu baaxee ñu téye su baaxul tamit ñu jël ko supprimer xoolaat leneen mais nekkul loo xamante ne dañu toog di ko répété mbaa ñu koy loolu euh, loolu moom dëgg la ñoo ko déggandoo euh, doonu lu ñuy répété doonu itam loo xamante ne maanaam euh, lu muy bind la maanaam lu ñuy xalaat wax la après si kaw loolu itam danañ xool. Euh, lépp loo xam ne dañ ka si yokk muy lu baax ak ñi muy àndal euh, ci kaw loolu itam euh, bëggoon nañoo xam dëgg-dëggi maanaam nooru wàllum TikTok dafa tëb tëb dugg si wa ilaa dafa nekkoon di dund aar daal. waaw nooru benn nit la boo xamante nii daana dund aar mu nekk loo xamante ni lu yàgg la ci moom nekkul ko TikTok moom a boole ak moom aar nag bi ñu koy dund dañ koo nekkoon ak suñu benn waay yaakaar naa ko ñëpp ràññee la. di ko jaajëfal bu baax di ko nuyoo passage muy Xaadim Gueye ñu gën koo xam ci wala wala mooy mooy borom xam naa ne borom waa jaa di ko jaajëfal bu baax ndax mën naa ne fépp fu ñu yegg moom la moo nu fekkoon ñu nekk ay nit ñoo xamante ni dunduñu loolu ci suñu bopp mu def ko ci ñun ba tey jii nii fu ñu mën di dégg daal ginnaaw yàlla moom bokk na ci waaw moom moo ñu nekkoon suñu mettre en ñu nekkoon ci koñ bi organiser benn troupe boo xamante ni suñuy grand yi nekkoon suñu koñ dañoo yor benn troupe bu ñu doon wax euh, jàmm xéwal muy ñoom Mor ak Ale Euh, bi ñu demee ba nga xamante ni gisatul leen te loolu nekk loo xamante ni daf ñu neexoon ñu tur euh, organiser benn troupe tuddee ko woon soppee jàmm ak xéwal léegi bi demee ba benn moment ñi bëgg dañuy des ñi nga xamante ni daam lu leen fi indi woon dañuy dem léegi nag ñi des ñuy toog daan répété ba si yàgg nit ñi xaw a wàññeeku ba TikTok commencé ñëw gars yi ñu toog waxtaan ko monsieur du ñu ne pourquoi mënuñu def benn vidéo ci laa defoon benn vidéo juste comme heure bi daaw mën naa ne ça fait un an ma nekk ci TikTok heure bi daaw laa defoon vidéo boobu mooy bi ma naan bis ñi ki tey la sax n'est-ce pas tey leen ko war a def 3 jours yi xaw ma 4. Euh, kay euh, ñu defoon vidéo ba ma naan sama gel bi dama envoyé message ne ma seen courant dafa jeex ma envoyé ko wéef pour mu dugal seen courant ndax dama ko war a seet si boobu vocal ku fukki vocal la ñaar mu lii yëpp tontu ma bu ma ko woowee mënu ma ko jot. vidéo boobu laa njëkk def ma xëy suba nit ñi di ma woo ay sa vidéo bi nangam ma ne kon naa enchaîné lii moo tax ñu gën cee gën a jàppaat tamit. maanaam daal euh, su ma déggee sa wax maanaam euh, troupe boobu noonu nga xam ne moom ngeen taxawloon képp koo xamante ne parce que ni nga waxee ne nga am ñoo xam ne dañoo anière dañ see des su ma déggee sa wax daal ñi xamante ne ñoom ñoo gëmoon seen bopp des yi tey jii ñoom la gis si TikTok bi ku mel ne ak ak yow mi nii. non même sax ñoo ci gënoon xamante dara ñoo ci gënoon xamante dara mais dafa fekk loo xamante ni bu ko yàlla defee ci nit lu mun da ñàkk nekk sama ginnaaw la ndaanaan yu nekk fi ñoom ñu ci suuf te da leen gis incha allahu rabbi bientôt te it xam naa ne ku ci génn danga nga xam ne kii am na loo xamante ni mi ngi ci moom Nuuru moom moo ci gën a niil xamul dara. mais euh, dama seetaan sa sa benn vidéo bi nga naan euh, maam da bi bi nga xuloo ak sa papa euh, ñu baal ma si si kàddu gi parce que vidéo bi su ma juumul noonu nga ko joué mooy bi ngay fayoo sa baay xaalis bi mu naa mu naa la sama la fayee da génn sama kër waaw vidéo bi vidéo boobu itam bëggoon naa nga ñëwal ñu si maanaam. waaw vidéo bi ma bi ma ko defee euh, bëri naa ci ay appel bëri naa ci tamit ci commentaire da nga ciy gis lu nekk mais li tax ñu def vidéo boobu noonu ba nag ma wëlbatiku jëmale ko ci sama papa sama papa dafa nekk nit ku baax ku woyof donte rek xam naa ne ñëpp noonu la seen papa mel ci ñoom ndax doom bi nekk papaam yaakaar naa bëgg na ko mais man tamit li ma xam ci sama papa am naa droit wax ku ma bëgg tamit nekk ñaari fànn ci man ndax dafa nekk sama papa wëlbatiku nekk sama maam moo tax su ma bëggee wax benn kàddu rek su ma ko bëggee jëmale ci papay kenn dama naan tur wi est-ce que bu ma ko tuddee du nekk loo xamante ni daa am koo xamante ni day jël image boobu féetale ko ci papam moo waral ma jël image bi teg ko ci sama papa te it bi mu seetaanee vidéo bi day ree damay gis ñuy kaf di ree ay waxtaan jàppee ko dara daal xam na ne benn euh, paas naa la woon lu am lu ma waroon a def rek te war naa ko mën a jaarale ci moom c'est ça. ndeysaan euh, ñu leen di fàttali rek ne euh, tey sama ndaanaan bi muy invité moom mooy Nour Sow Nour Sow xale bi nga xamante ne. maanaam comédien daa nekk si deretam mu gëm ko dégg ngeen li wax nee na si aar bi la nekkoon théâtre nekk si suñu borom dogal mu dem ba xam ne man mi yëf yi dama see war a bokk moom moo tax mu dem ba bokk si comme te yàlla dogal na nag mu dem ba ak agsi fii nii kon li ñu si jàngatee rek mooy képp koo xamante ne maanaam da nekk si dara gëm ko soo ko gëmee rek suñu borom dana la dimbali ñu leen di fàttali rek ne yéen ñu ànd ak site internet 28 euh, pro Euh, ñu leen di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñu émission na nga dugg si compte bi nga abone yokk ñu jëm incha allah si euh, kaw loolu itam maanaam dégg naa la ngay wax si sa waajur lu am solo maanaam parce que euh, jamono ji ñu toll dafa doy waar am na ñoo xam dañu nekk si YouTube bi nekk si TikTok bi mais seen waajur du du rafetlu dëgg-dëgg li ñuy def yow sa waajur maanaam bi nga commencé ba mu xam ne yow yëf yi nit ñaa ngi koy bëgg ñoo ngi la si kii maanaam ban ban ban réaction la doxee sa diggante yow ak moom. waaw bi mu doxee ci sama diggante ak moom mooy maanaam que mu xamal ma ne ma yaa ngi ci dëkk boo xamante ni dëkkub jàmbur la muy Touba euh, booy man looy mën di def ci àdduna na nga ci seet ne da nga am ay mbokk nekk ci dëkk boo xam tamit dëkkub jàmbur la kon tamit te it worma lan wax dëkkub wormal la nangay ngay wodd say wax te di wormal dëkk bi te xam bu baax li ngay def lii daal boo ko defee dinaa gën a kontaan ci yow. sama waajur góor wax na ma ko sama waajur bu jigéen wax na sama waay bu jigéen dañuy toog nee na benn bis dama dugg ci benn oto ba ñuy waxtaan ci yow bay ree am ko naan moom laa te xamul ne moom mooy sama yaay ma ko loolu nag mënut ndax nit moom bu la bëggee fu ne lay toog di ko waxtaane nuuru nag deful tax nit ñi di ko bëgg xam ne nit ñi ñoo baax seen baaxu bopp rek waaw bi wax ma ko ne ma nag loolu nag war naa mën a gën a tax ngay xool bu baax li ngay def ndax bu ñu demee ba ay mag bu jëmm di la suivre war a def loo xamante ni bu nit toogee ak njabootam sax mën ko war a mën a seetaan ma ko incha allah te maa jéem bu baax nag juum nag mënut a ñàkk mais it bu nuy juumee nañ ñu comprendre te xam ne ñun ñu ngi def lu suñu kenn kàttan rawatina gars yi nekk sama ginnaaw Missatou Ahmed Ablaye bañ na ko ba dañ koy bañ ba ak Mortala dañ koy bañ ba dañoo créé benn groupe boo xam vidéo sax balaa dugg ci compte bi ko dugal ci groupe bi xool ko xoolaat ko par exemple vidéo ba ne nii neex na ñu dugal ko ci groupe bi kenn xool daal ne man de am na defu bu ma ci gis muy temps ñu ne kon nañ ko bàyyi ndax it nit li ko yàqal lu ndaw lay doon comme li lay defaral li nekkal lu ndaw li lay yàqal lu ndaw lay doon dama mas a euh, toog ak sama benn xarit artiste bu mag muy Serigne Mbacké Trace maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu ne ma nit ki bu ñu bañ ci benn lay commencé ndax lenn ngay def rek nit xool ko ne neexu foo toog mën leen la diw de xoolalam def keneen xool ko ne ah lii di man bàyyi ma ci woon xel foofu ngay commencé ba yaa ma gën xam te it maa ci bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf ndeysaan ñoo ko déggandoo euh, ñu amoon fi Noor Sow ndeysaan euh, si ak yaatoom si ak tabeem si ak yaroom. parce que dëgg-dëgg bëri si ñoo xam te suñ déggee turu Nourou saw dañ naan fa la dëkk mais yàlla xam na ne maanaam dëkk bii di Touba dëgg la dëkkub Serigne Touba la te comme ni mu ko waxee rek waajuru mu góor wax na ko képp koo xam ne yaa ngi fi dangaa war a sóoraal ne yaa ngi si dëkk bi maam war dangaa war a def lu méngoog li borom dëkk bi bëgg kon ñoo ko déggandoo euh, ci kaw loolu itam ndeysaan euh, mu wax wax ju am solo nga xam ne maanaam li mu siy jàngale mooy gëm sa bopp moom moo lay tax a ñëw euh, agsi fii nga agsi parce que ñun bi ñuy déplacé wu di ñëw yàlla xam na ne xamuñu woon ne dëgg-dëgg Nooru maam Touba dëkk kon Touba am na ay jeunes talents euh, ci kaw loolu itam euh, Nooru bëgg nañoo xam Nooru jamono ji ñu toll comme te yàlla dogal na macha allah moo ngi sant bu baax a baax ci li nga xam te ne xëy na jot na fee jaar ba jàll gars yi moon nañ la maam pour le l'instant nii yan yan projet nga nekk ak lan ngay programme waaw waaw projet yi moom bari na yi bari ne jëm-jëm joo gis day fekk mu ànd ak kàttan xam ne nag lépp daal ñu ngi ciy jëm ci lu bari nag ci lu baax waaye ñu ñaan yàlla suñu borom mu jàppale ñu ba bu génne ñëpp man koo seetaan te it mu nekk ci seetaan bu rafet di leen xamal leen wóoru mi ñëwaat comme ni ma ko waxee woon ak beneen façon rek te maanaam beneen façon nag bu ko déggee du damay bàyyi sama rythme bu ma nekkee woon ndax nit ñi yaakaar naa benn bi nga def man bëgg la ba fukk bëgg la boo ko defee ñaar fukk dana la ci bëgg eh, mais it dañ ne xuma saf-safalaat saf safal waaw yàqul dara ci safin waaw moo tax ñu bëgg cee fee bu baax a baax daal incha allah ah, ñoo ko déggandoo loolu am na solo eh, sama invité tey sama xol dafa sedd ndax daanaka dafiy wax wax joo xam te ni yàlla xam ne ne mën naa ne lépp ay message la yoo xam te ne eh, yuy jàll la eh, noonu rek laay def di ziar bu baax baax see baabu naar ndeysaan sama waa ji nga xamante ne ndeysaan macha allah borom voix bi baax lool yaru tabe doomu nday sukk bébé maa ngi lay ziaru biir euh, di la wax comme ni ko gars yi di waxee mention spéciale Cheikh Babou Naar ak sëñ Fallou maa ngi lay ziar Modou Moustapha ndeysaan yow itam maa ngi lay ziar ndax ñoo ñëpp dañuy suivre 28 pro di ko bàyyi xel bu baax a baax comme niñ leen ko waxee woon rek képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñu émission na bi nga abonné euh, ci kaw loolu itam ndeysaan euh, bëggoon na ñoo xam dëgg-dëgg maanaam jamono ji nga tool ku la woon tag ne la nooru dama dafa am benn série boo xam te ne damaa bëgg nga bokk si est-ce que nooru mën na ko jouer maanaam nooru TikTok rek la mën wala wàllum xeeti série ak yooyu noonu kooku si woo mu dem. nooru waaw li mu mën da bari la mais Sénégal moom preuve lan xam jamono ji ñu toll maanaam man nga wax dara sax ñu ne day neexal ko ñenn ñi bokk du ñëpp nag àdduna moom ñëpp yemoon ndax bu ñëpp yemoon am ñu gëdd seen cër mais defe nañ ne defe am nañ yaakaar ne ñun mën maanaam daal suñu déggee sa wax Nour daal polyvalent la mën nañu fépp daal dem nañ ci yaakaar bu baax hmm. su ma la su ma la wooyee si sama série bi da <laughs> loolu du problème ah Nour waxal lu leer non yow yooyu ñoo far après da ngay déggoo ak monsieur rek kooku moom lépp moom la ah. yow émission bi gis nga moom nga déggoon moom boo waxee ak moom rek lu mu la wax ci man man maa ndax man du ma joxe bopp di root ci làmmiñ te lépp moom la au début ba fii ñu egg si lépp moom la kon waxal ak moom rek maanaam Miss euh, Miss lan nga Miss Dou Tuubaa bu baax te ma di ko sant bu baax a baax tamit ndax ba mu jàppee ba tey bàyyiwul gor la ndaanaan la ku baax la ku woyof euh, damay woo këram am ay idée di dox ci yu bari tamit ak yeneen i jàppale yoo xam ne ngi ci suuf ci sama diggante ak moom waaw donte nag ñëpp a koy def nag ñëpp ci ñi may àndal ku ci am loo xamante ni lu baax la da nga ciy yéene nuuru feesene ko ca yaatal waaye moom it gis naa rôle bi muy joué ci man tey jii mën naa ne bu doon ci terrain la mën a diis la mi ngi séddale fépp mën a diis la ndax mi ngi séddale kon nooru daal suñu déggee sax maanaam am na sans nooru kese am na ñeneen ñu nekk ci ginnaawam ñoo xamante ne maanaam dañ koy teg loxo parce que jamono ji ñu toll pour nga def dara rek nit ñi bëgg la balay jàppale itam yombut. waaw nooru moom ñu nekk ci ginnaawam bari na lool bari na lool xam nga olof na ne ku lim juum mais ñu nekk ci ginnaawam bari na lool ndax képp ku jug di la dooleel jël crédit jël connexion am di ko yàq ci yow jël xaalisam boo xam joxoo ko mu liggéey ko dem jënd ci connexion am dem ba sa seen abonné toog di wàcc say vidéo a kooku mi ngi jàppale. Euh, ñoo ko déggandoo mu mel na euh, jamono ji ñu toll dañoo nekk ci euh, feede émission bi ndax ku ne xam ne ne jamono ji ñu toll jot amut kon mën naa ne Nourou saw tey jii nii suñu mayee tuuti si temps pour ñu def ak moom émission dañ koy sant di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla comme ni ñu ma comme ni ñu ko waxee ñun am na loo xam ne gis nañ ko si nit ku oyof la nit ku yaatu la nit ku tabe la ci kaw loolu itam fi ñu tàggatoo rek Nourou si jamono ji nga xamante ne dugg na si aar bi ba fii muy agsi si ce que dund na si jafe-jafe yoo xamante ne maanaam saa bu ko xalaatee am am si lu ko métti lool. waaw loolu moom mënut a ñàkk adduna maanaam jafe-jafe moom mënut a mais jafe yooyu ngay dund wala loolu ngay dégg moo lay motivé ba nga tax nga def sa kenn kàttan loo mën ak loo mënut ndax nit moom doo dugg ci dara rek ñëpp maase bëgg mais ñi la bëgg dañ yokk jom ñi la bañ yokk la courage ndax it olof danaan ba ñu ma ko ma sént ci gaalu xaj mais doo ma ci fekk may lekk waaw ñun nag wax dëgg yàlla dund ñëpp ñu maase bëgg nag ndax ku ñëpp bëgg war ngaa tiit ci sa bopp mais danañ def suñu kenn kattan ngir ñi ñu bëgg lu ñu génn ñu mën koo seetaan te duñ toog fenn rus waaw danañ ci jéem bu baax a baax a baax a baax ndax kenn ku maanaam ki la bëgg jar na daw ba dee ngir fukk yi la bañ benn bi la bëgg. benn bi la bëgg ngir fukk yi la bañ. loolu am na solo <laughs> ndeysaan ñoo ko dégg no loolu am na solo euh, Nourou lan lay tàggatoo ak lan lay wax ay fansam. Nourou li may tàggatoo mooy ziare ñëpp di bëgg ñëpp rawatina ñi nga xamante ni ñooy waa 28 pro mu yéen ñi tey di ziare képp koo xamante ni yaa ngi koy bëggee di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a baax ndax mën naa ne lu ci ëpp ñoom la ak sama gars yi ma àndal liggéey bi laay sama doomu la yaakaar naa ñëpp a ko xam loolu laa ko yàq ak Missa Doum yi ak Ahmed. ak nday nday sama benn doomu doomu nday la wala suma doom bàññe sama xarit la daal ndax boo gisee sama vidéo dama ko ci yàq lu nekk moom sama benn jabar grand bu naan jaw ma leen di nuyu bu baax a baax te di leen jégalu bu baax ndax lu lañuy dégg ci man. waaw Nooru kon euh, ñoo ngi lay jaajëfal di kontaan ci yow bu baax a baax. maa delloo ziar bu baax a baax a baax. Euh, ñoo ko gisandoo jërë ngeen jëf euh, mbokki julli yi mbokki taalibe yi chaque jour nii lañ koy defee euh, si 28 pro muy émission ndaanaan yi émission ndaanaan yi émission ndaanaan émission ñëpp la kon képp koo xamante ne rek tey jii nii yaa ngi seetaan suñu video jàppal ne émission ndaanaan yi yaa ngi si biir soo amee temps wala nga am jot pour ñu invité la si jàppal ne woo nañ la si kon sama gars yi émission ndaanaan yi la woon ak Baye Dame Gueye ñu waajal ko ak beneen émission ak beneen ndaanaan jërë ngeen jëf maa ngi sant nag sama jinne caméraman yi ku mel ne na Omar ak Modou Kara ak Sëñ Fallou Khadim Diaw gaa yëpp maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf